la jëm ci ñaqu bi la jëm ci ñaqu bi muy vaccin bi faaw ñu wax ci ndaxit ñu bari won nañ ma ne waaw bul wax ci vaccin bi c'est sensible homme politique lu xew ci réew mi te war a concerner waa réew mi yépp danga cee war a gëstu càmbar ko waxtaan te ñu ci war a waxtaanal boole kook leneen leneen li nga yor boo dajalee loolu yëpp da nga war a am position wax ak nit ñi parce que ay nit a lay déglu te nit dina la déglu fu mu dégluwul keneen koo xam ne peut-être loolu moo la ci ëpp xam-xam li ma ciy njëkk wax ci vaccin bi mooy jàngat gi ñu war a njëkk am ñun africain ci lii mooy tappale yorul am réew seetlu leen ni àdduna bi yëpp continent yëpp produit produit nañ vaccin ba mu des Afrique Asie produire na vaccin ndax Chine am na vaccin Inde am na vaccin Europe produire na ay vaccin euh, Amérique produire na ay vaccin Afrique mënul produire benn vaccin li ko waral mooy fi ñu waroon investir sur le capital humain ñu ngi jël xaalis di ko pasar pasare ci politique ci jënd ay nit pour ñu voteel la ci dugal ay nit ci ay cas di leen yóbbu mel ni ku yor sa sa sa sa sa jur xaalis bi ñu waroon dugal ci njàng mi pour am ay scientifique yu taxaw gannaaw bu ñu ko amee ñu créer ay cadre pour ñu mën a def recherche fondamentale recherche développement xaalis boobu la ñuy pasar pasaree moo tax sénégale il faut ñu yeewu ñu doon dugg ci kaar yi ñu leen yóbbu Fuuta ak ñu leen yóbbu Kaffrine nañu xam ni xaalis bi leen waroon faj xaalis bi leen waroon a jox liggéey seen doom xaalis bi leen waroon tabaxal ay tali xaalis boobu rek lañuy jël di leen di leen dugal di leen yóbbu perte buy am yéen rek a ci perte ñoom perte ñu ci dara ndax jógewul seen poche ngir yàlla na sénégalais yeewu benn yoon réew caaxaan du ko defar waaye caaxaan gi du rek caaxaanu homme politique yi dafa am lenn ci askan bi di leen topp ci loolu mooy premier jàngat bi ñaareel bi mooy il faut ñu accepter débat di am parce que réew mi dafa am lu fi am loo xam ne man kenn duma ko mën a opposé mooy su dara amee rek ñu ne ñoom ñii lañu bëgg ñëpp xalaatee foo jaar ñu ne la ñu joxañ la ne la ni nga war a xalaatee ba pare nag def benn propagande médiatique boo xam ne nit ñi sax dañuy ragal wax ndax ku wax ñu ne waaw moom de dafa contre lii wala moom de dafa lii mais demal France demal Angleterre demal États-Unis demal man chaque jour damay toog taal seen yi di seetaan suba ba ngoon jot ay débat la yi toog débat homme politique yi toog débat ñii ne d'accord na ñii ne d'accorduma c'est ça noonu la société di doxee te ñu war a nangu it ne war a nanguwit it nii Sénégalais yi dañu am ay question ñoom ñoo war a génn tontu question yooyu Sénégalais yi am nañ sañ-sañ am question ne ah man de ñàkk bi bëgg naa ci xam lii balaa ma ciy dugg bëgg naa ci xam lii nun duñu ay bàyyi ma yoo xam ne dañ lay takk rek yóbbu la ne la ay wa li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance voilà docteur donc problème bi du est-ce contre na vaccin wala contre ko gëw moo it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñu mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na moom nee déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa ak nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bi vingt ans vingt cinq ans trente ans ci gannaaw ku la mënoon ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar ci quinze ans vingt ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt waaye bu ñu ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj yi nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu dalal xelu sénégalais waaye kenn amul sañ-sañu laaj ñëpp nañu dem rek vacciné wu man nag bi ma ci tollee dama laaj samay laaj liggéey ak docteurs yi infectiologue yi keneen ak keneen bokk na ci laaj yi ma laaj mooy est-ce que mën nañ ma wax ñàq bi ku ko ñàqu ñaata weer la lay couvrir la lay couvrir parce que su dee décideur politique nga boo waree engagé sa peuple ci dara war nga xam ni lii à court moyen et long terme lan la ba léegi aw ma tontu ci laaj boobu laaj naa docteur yi bëri ñi ci gën a kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais du catégorie mooy mën na nekk entre 3 mois et 6 mois ñetti weer ak juróom-benn weer soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom benni weer wala lu teg lu ci tegu tegu tuuti war ngaa dem ñaquwaat kon dañu xam ni cycle bu ubbeeku la peut loolu loola tax Pfizer dugal autorisation pour troisième dose te démb si guddi laay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe troisième dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàkku ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laame est-ce que su ko duggee mbir bi da da da vaccin bi da koy néewal doole ba du ko bu fenn fi am déet loolu nag ay études cliniques dinañ ko prouver am déet mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàkku jëlaat vaccin bi ba ba taux de couverture bi nga xam ne dañ naan ñii naan 60 pour cent ñii naan 70 pour cent ñii naan 95 pour cent mooy vaccin bi boo ko ñàkkoo ba noppi téeméer yu ñu ci ñàkk selon taux de couverture bi am na ci 80 pour cent yoo xam ne dañuy réagir ak 20 pour cent yoo xam ne duñu réagir waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko tekkiwul dama contre vaccin loolu sénégalais yi moom lañuy ñuy laaj bi euh, may daanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variant yu bees yi parce que gis nañu ni affaire bi dafa mel ni moom fi mu ne ñu ngi ci cinq variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lamda bi nga bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax ndax euh, d'ici quelque temps ñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner 80 pour cent de leur population lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravage parce que étude bi wane na ni variant variant bi ñu am ñoom euh, euh, euh, vaccin bi ñu vacciné wu variant chine mënul téye variant indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñoom dañoo mujj annulé AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud kon yooyu ay question légitime la yoo xam ne Sénégal dañ ko war a laaj te ñag bëgg naa ñoom ñu jàkkaarloog Sénégalais tontu wax Sénégalais yi lu leer ci question yi parce que ab peuple boo ko buggee def loo dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu jàpp mooy euh, loolu yëpp boo ko boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté euh, euh, recherche yi semaine passée nee nañu 865 000 vaccins la ñu nit la ñu vacciné 865 000 doses waaye 865 000 doses yooyu 256 000 rek ñoo ci jëloon ñaari doses yi ñeneen ñëpp a ngi wër di ut deuxième dose bi mënuñu ko am. foo dem ñu ne la jeex na loolu nag li muy moo dem mooy une mauvaise politique de vaccination parce que boo amee huit cent mille doses da ngay vacciner quatre cent mille yi téye quatre cent mille yi pour deuxième dose doo nga dem uti leneen parce que ça ne nga jox nit ñi premier dose seen période jeex mënoo lañ jox deuxième dose je préfère vacciner complètement pour cent de ma population plutôt que de vacciner partiellement deux pour cent de la population mais loolu c'est élémentaire ñun est am nañu politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas y a que 250 000 jot seen deuxième dose et comme la politique est désordonnée tantôt euh, Sinovac bi la tantôt AstraZeneca yooyu amatul ci réew mi après ñu andi la Johnson et Johnson suba ñu indi la Pfizer donc ñi jëloon AstraZeneca nuy jël deuxième rappel jo euh, Pfizer wala docteur donc comme yooyu yëpp am na fi ñun li ñu jàpp mooy. Euh, ñun waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu mel ni mu présenté wu fii bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaari yi dinaa ko wax parce waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi nit ñi forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax passe sanitaire mooy dañ daan ah ku mu neex nga vacciné wu ku mu neex du vacciné wu waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci car ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci euh, bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé di nga vacciné wu ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amende loolu waruñu warul am Sénégal waruñu koo nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin mënoo ko mënoo ko def kenn ñaareel bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko jagleel dans un premier temps li ñuy wax les personnes vulnérable les personnes vulnérables mooy mag ñi ñi am 65 ans jëm kaw ñu nañ leen jagleel vaccin bi en priorité ñooñu pareeguloo leen vacciné nga ne léegi 18 ans yi ngay ngay ngay ciblé lan mooy c'est projet finalement ndax dégg ngeen ministre la santé keroog bu mu demee di jëli vaccin Johnson and Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi au 18 yow mag ñi vacciné gu loon te ñoom ñëpp wane nañ ni 99 pour cent taux de mortalité bi ci mag ñi la ñi mu mën a rey ci ndaw ñi li ci ëpp 99 pour cent yi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni jabet yooyu ñuy pikiiru walla obésité yu ëpp yi wala wala donc balaa ngay. xool ndaw ñi na nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi ils sont immunisés à 99 pour cent wala plus loolu xel war na ko mën a nangu lii mooy yi nga xam ne lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insister waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk max yi nañ jël les mesures barrières parce que même suñu vacciné mag ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo am facteur de comorbidité mooy dañu am yeneen yenn jàngoro suñ leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi nekk jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci kër yi même avec le vaccin mag ñi mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën a góorlu ci yooyu lii mooy li ñu buggoon waxtaan ak yéen mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant te di leen wax ni waxtaan bi ci olof rek laa ko fas yéene woon def ndax euh, euh, léeg-léeg boo bëggee def ci wolof def ci français dina gudd te jàpp nañ ni suñu waxee ci wolof ñu ci war a jot ñëpp nañ ci jot ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum